waaw xam nga jamono su nekkee dëkk bi xaw a am lu mu mel ministère de l'intérieur li ñuy wax sécurité publique mooy jàmmu askan wi muy ministère de la communication muy ministère de l'intérieur dañ ci war a jóg te yenn saay artu moo gën àtte te presse dafa ñuy wax noo xam ne dafa doy waar ndax ci presse mën na taal dëkk comme mën naa defar soo xoolee yenn dëkk yu mel ni euh, Rwanda presse moo ko taal kon tey jii yenn saay dinañ ñi nga xamante ne ñoo yor sunu kaaraange su amee yenn lu ñu gis loo xamante ne mën naa taal réew mi. ñoom dinañ jël yenn saa yi seen i matuwaay te xam naa ne su jëlee matuwaay ci kaw loolu lañ ko teg. mais moment bi émission bi coow li di am keppaar gi moo doon daw lu chroniqueur Papa Amadou Diallo moo ko doon présenté il y avait Pierre-Edouard Faye mm -hmm. et le PDG du groupe. Cheikh Niass mm-hmm. waaw xam nga mbir mi man sincèrement ñi nga xam ne ñoo jël décision bi ñoo ñoo ñoo mën a génn défendre décision bi. Mm-hmm. mais man ci li ma xam moom. moom mooy suñ ko defee dañ ko wéer ci kaw sécurité publique xam nga tey suñu dëkk nekkee ci jiixi jaaxa ngay wane taal bi di di wax wane wane goo xamante ne dina yee fitna wala woo fitna mais ministère am na droit ci yoonam daal dina arrêté parce que tam euh, euh, dëkk lu ko taal dafa yomb tey jii am na benn événement mën na am ñaari pneu yu ñu taal fii am na nuñ ko presse wane ñu mel ni dëkk baa ngi tàkk ñi nga xam ne ñu ngi doon nelaw sax daal di ñu ko xaaral nañ jóg bokk ci wala tey ñi ngi wane ne ñi ngi taal benn magasin Auchan fii ci koñ bi yow yaa ngi doon sa nelaw nga gis ci télé bi ñu ngi taal seen Auchan ngeen jóg ñeen ñëpp daw fàq jëm fa mu nekk lu kenn xamul maanaam daal dëkk ak presse dafa nekk lu sensible ba ku koy def war a jël say matukaay yépp ba nga xam ne moytu luy taal xam nga ñaata télévision ñoo am senegal kenn xamul yaanaa au moins une dizaine. une vingtaine une vingtaine même une vingtaine donc. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais lu tax ñuy nennu ci ñooñu. ñëw ñëpp kenn demuñ ci kenn tëj ko. ñoom nee nañ singal li la. ah mais suñ ko singalee dafa fekk dafa am lu ñu def. wala lu ñu mel.